mais kii du Alima Mbaye. maa ngi nii sama askan bi nag moom la maa ngi nii. waaw Alima Mbaye mu baax mi te yaru. waaw nga ne foo ne woon. donc damaa ci damaa ci dugg. man sama mag la respecté sama papa. waaw. presse bu mag bi. waaw waxal l'héritier bi presse magam la ñoo bokk baay waaye magam la dama respecté. en tout cas fi nga ne woon. askan bi bëgg nañ koo xam daal. waaw waaw maa ngi woon fu neex nag. nga ni ma. waaw. maa ngi woon foo xamante ni. waaw maa ngi woon foo xamante ni. moo am yenn saa yi ma def yow xool seen ci bi. daanaka jege woon nga àjjana bi. maa nga ni ma. laa eh, <laughs> <laughs> leneen li léegi lañ koy yeggali fii ci Mabor mi doo taal leen télé yi téye télécommande bi te seetaan ñu waxtaanee ci fale yi ndaanaan lañ waxtaanee Aliou moom li yee